alhamdulillah wasalaatu wasalaamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashaabihi wa man walaah mbokki jullit yi ñu ngi leen di dénk di dénk sunu bopp ragal yàlla ragal yàlla mooy dénkaane bi sunu borom dénk ñu jëkk ña ak mujj ñu mujj ña ne wa laqad wassayna alladina utu alkitaaba min qablikum wa iyakum an ittaqu llah borom bi nee na dénkoon naa ñi nga xam ne ñoom laa wàcc ci woon ci ñoom ay téere te ñu jiitu leen dénk leen yéen itam ne ragal leen yàlla mbokki jullit yi nettali yi nga xam ne ci lañ nekk booba ba léegi mu aju ci génération bu wéet boobu bu ñàkk moroom boobu muy àndandoo yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam niñ koy fàttalee daaiman moo di jubluwaayub jàngat dundug ñooñu mooy wedamloo ak noppiloo ay doomi aadama yoo xam ne dañoo jàpp gëm di tasaare ci biir askan wi ne saxaaba yi dañoo soppiku gannaaw yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam nettali yooyu ak xew-xew yooyu ak melokaan yooyu ñu doon dund daf nuy won ñooñu ci lan lañ nekkoon gannaaw yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa ak fan lañ ko tegoon yooyu nettali mbokki jullit yi daf ñuy won ne googa maas kay tubbiwuñ delluwuñ gannaaw soppiku wuñ ñoom kay garde nañ seen kullëre nañ ko fase woon seen digganteeg yonente ba sallallahu alayhi wa alihi boole ko ngëm yàlla goo xam ne moo gën a dëgër ay montagne boole ko mbëggeelug yàlla ak mbëggeelug yonentam ci anam goo xam ne histoire musula gis lu mel noonu mbokki jullit yi ci xutba bi weesu ke doon xutba waxtaanoon naa ak yéen ci mbëggeelug yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ni ko sharia digale nañ ko war a defeek lam ko santaaneek fañ ca war a yam muy fa ca sharia yamlu xamoon nañ ci loola it ne asalafu saalix muy saxaaba yi ak képp ko topp seenu njub ñooñu ñoo gën a dëggu ci bëgg yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ñoo gënoon a sellal ci bëgg yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ñoo gënoon a dëppoog sharia ci seenu bëggiin bëggiinu yonente bi alayhi salaatu wasalaam tomb yi nga xam ne moom la ñuy jaar nag tey daf nuy feeñalaatal geneenug wet geneenug wet ci seenu dund ak ci seenu mbëggeelug yonente bi sallallahu alayhi wa sallam mbëggeel goo xam ne dafa aju ca jëmmam ja wane ne nañ ko doon défendre ci ak dundam nit di taxaw ñi sànni ay fet mu ne bu naree dal ci yonent bi na dal ci sama yaram mbëggeel googee dafa continuer itam gannaaw bu fi yonent bi alayhi salaatu wasalaam jógee bëgg ko bëgg jëmmam bëgg sax lépp loo xam ne da leen di fàttali jaw wi ngëm yàlla ju teey ju neex ja xam ne dañ ko daan dund ànd ak yonente bi sallallahu alayhi wa sallam moo tax lépp lu leen daan fàttali seenu dund ak yonente bi sallallahu alayhi wa sallam rek dafay daal di jeexital ci seeni xol day tax ñu bari ci ñoom di jooy sax ngir fàttaliku yi ngëm yàlla yooyee nga xam ne ku ko mosut mëneesu la koo nettali ka koy dund sax dend ak yonente bi sallallahu alayhi wa sallam bu ko soree dana yëg ne fa mu ko jege woon ak fi mu ko soree bokkut loolu moo tax yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ba ko Hanzala ne nun day danoo gis buñ toogee ci sa jataay bi di la déglu li nuy yëg dañuy mel ne ñoo xam ne daal nitu àllaaxira walla àdduna dara itteelatuñu ci waaye buñ delloo ci njaboot ga rek commencé waxtaan ak ñoom dugg fii génn dugg ci lii rek sun xol yi daal di soppiku ragal ne loolu kéefër la yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ne ko ni ngeen di mel su ngeen toogee fi man su loolu continué woon da ngeen dem ba malaayika yi dañuy saafuwanteeg ngeen di leen jox loxo maanaam da ngeen di soppi ko ay malaaka waaye duuti leen doon ay nit daal di nekk walakin saa wa saa waaye nag doomu aadama noonu la fexe leen ba su ngeen dundee loo xam ne day woyofal tuuti ngëm yàlla it ngeen dundaat loo xam ne day diisal ngëm yàlla kon yéeg-yéeg boobu lañ doon am ci dundu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bu ñu masaan dend ak moom waaye nag ñu xam ne ba mu fay jógee it dara soppiku ca loola image bu njëkk bi benn nettali la boo xam ne ngi aju ci Seyduna Bilal nit ku màgg kooku mujaahid bu mag boobu yi nga xam ne moo daj la mu daj ca màkk ngir ngëm yàlla taxaw ci kanam yéefar ya gën a tar kéefar ëpp doole ëpp alal ëpp ay pexe ëpp ak moomeel mu taxaw ci seen kanam tëleen pexe yu ne ñu jéem ko digganteem ak moom mu sax ci kàddu tawxiid musta dellu gannaaw li fekk xelam a ngi ànd ak moom waa joojee nga xam ne moom la Abu Bakar goreeloon jënd ko wala mu weccee ko sax ab jaam eh, jël ko indi ko ci yonent bi sallallahu alayhi wa mu nekk ak moom ni ko Omar ibn al doon waxe mu ne Abu Bakar sunub sang la waaye moo goreel sunub sang la waaye moo goreel sunub sang jublu ci Bilaal radiyallahu taala anhu bindikati histoire yépp dëppoo nañ ci ne Bilaal gannaaw bu mu duggee ci lislaam moo noddal yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ba kero yonent bi génn àdduna mus sa tàqoo moom ci tukki ak ci ñàkk tukki fu masa a fu nekk ma nga fa bu waxtu julli jote mooy nodd bu yeete jote mooy yeete kon kooka mooy bilaal te loolu nag àdduna ak li ci biiram yépp xam nañ ko ci moom daanaka boo doon seet saxaaba yi bi gën a siiw ci saxaaba yi ba wutut mooy bilaal dem na ba jàkk yi sax ñey nodd faf bilaal lañ leen di tudde gannaaw génn àdduna ak yonent bi sallallahu alayhi wa sallam xew-xew bu rëy bi xam soppi na lu bari waaye soppiwul ngëm yàlla bilaal dafa dikk ci abu bakar mii xalifa bi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam tàggu ko ne ko man day dégg naa yonent bi alayhi salaatu mu wax ci ngëneelul jihaar fi yu bari yoo xam ne tax na daal man li ñuy wax faanu moom laa bëgg a def faanu buñ ko waxee muy ribaat mooy génn dem ca frontière ba fa jullit yi digaloog ña ca des nga xam ne noon ya dañ fay jaar di dugg si di yàq mu taxaw foofa di garde fas yéene ku fa jaar mu jihaatanteeg yow mu ne ko loolu daal dégg naa yonent bi wax ci ngëneel yoo xam ne moo ma gënal àdduna ak li ci biiram dama bëgg nga bàyyi ma rek ma seet benn frontière ma dem dëkki foofa Abubakar gànt ne ko damaa bëggoon nga toog continuer ni nga doon noddale yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nga dinu noddale noonu Bilaal ne ko su fekkee la nga ma goreeloon ngir nga continuer di ma moom moo tax kon ma toog su fekkee yàlla taxoon nga goreel ma nag kon bàyyi ma ak saa boroom mu ne ko yàlla taxoon ma goreel la kon demal mu daal génn Madina dem Saam ca frontière ya toog foofa di garde di jihaad fi sabilillah ndax Bilaal noddaat na gannaaw loolu noddaat na ñaari yoon ci li gën a dëgër ci li nga xam ne boroom xam-xame histoire yi nettali nañ ko benn bi mooy bi mu nekkee saam la chaque ne Bilaal ak nekkam saam mbooloo mu bare bari wëroon nañ ko ci jamono yu nekk di dund ak moom itam ba am na ñuy wax sax ne am na kuréelub mujaahidoon boo xam ne ab jaysh la boo xam ne mu mujjoon na mat ko muy ab armée boo xam ne ñépp dañoo waroon bilaal mu jiite leen ñu nekk foofu ci loolu la doon dund am menn at nag mu ne dafa bëgg a dem Madina nemmi kuwaat dëkk ba gisaat ñam fa bàyyi woon mu jóge Saam kon ñëw Madina bi mu agsee Madina rek nit ñi bég nañ ca mbir mu rëy Xasan ak Xuseyn ñaari sëti yonent bi sallallahu alayhi wa bi ñu ko gisee dañ koo laxasu ne ko bilaal dañoo bëggoon nga noot biñ gisee ne naruta nodd ñu dem ca Omar wax ak moom ne ko yaay amirul muminin bilaal ñëw na ci dëkk bi na nodd bi ko ko Omar digalee nag mu gis jullit yépp bég ci loolu ah mu ne kon na dem nodd waaye bi mu yéegee ci bérébu noddukaay bi ba yëkkati kàddoom ci kàbbar allahu akbar allahu akbar madina gépp dañoo àndandoo benn yoon di jooy bi mu agsee nag ci ashhadu anna muhammadan rasulullah dañu wax ne dem na ba jigéen ña fatu woon nga xam ne duñ génn seeni kër sax génn nañ dem na ba lenn ci nit ñi sax ñu ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dellusiwaat na jooy yi tar lool metti rawatina ña nga xam ne ñoo fàttaliku woon nag fani yonente bi sallallahu alayhi wa sallam Omar ibn al-Khattab radiyallahu taala anhu bokk na ci ñu ëppoon ay jooy ca bis booba kon ñu ne bis booba day jooyees na ci màddina jooy yoo xam ne mësisu koo gis ci taarixu Madina ci istuwaaru dëkk boobu ngir nodd googu ñaareelu yoon ba Omar ibn Xataab am na am at mu jóge Madina dem Saam moom ci boppam fekk na Bilaal la chaque ni nit ñam dëkkal pexe yu ne daan nañ ko def ngir mu nodd mu gàntu bi Omar ñëwee nag ab délégation ñëw ci moom spécial ne ko dañoo bëgg nga dimbali ñu digal Bilaal ndax yàlla mu nodd lépp luñ ci jublu fàttaliku yonente bi sallallahu alayhi wa ak lu aju ci moom bi ko Omar digalee mu nodd mu jóg taxaw fas yéenee nodd e, nodd ga àggul ngir joor yu bari ci dëkk booba bis booba tàmbali na nodd waaye nodd googa àggul kon bilaal gannaaw loolu genn nodd la nodd gu àgg muy gëm def madina nga ca des gëm doon nodd ca béréb ba ñuy wax jaabiyee ca saam googa nodd moom historiens yi nee dañ àggut kon mbokki jullit yi gi cofeel ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam gi aju ci fàttaliku jawwi xéewal jawwi diine jawwi sunna jiñ doon dund ak yonente bi sallallahu alayhi wa sallam aju googu ñu ci aju ak seen xol yi nim sedde ci lépp lu leen di fàttali loolu ñu doon dund kii dund lu mel noonu ndax doom aadama mën naa ñëw gannaaw convaincre jullit yi ni ñoo ñu doon dund ci kanam yonente bi sallallahu alayhi wa sallam bi mu génnee àdduna ànd ak ne bi muy dund ci àdduna sax ñu bëgg ngóor lañ ñu doon xëccoo àdduna lañ bi bi muy dund sax ñu ngi ko nëbbal ak noonoo bi nga xamee ne sax mi ngi dund sax ñu ngi koy defal ay pexe ndax nu mu mën a génne àdduna bañ jël état bi ndax loolu mënees na koo xel mën na koo jam xelum doomu aadama mucc mën naa jàpp ne ñii nga xam ne fii lañ nekk ñoom lu leen di fàttali yonente bi sallallahu alayhi wa sallam fii la leen àgg ba ab dëkk bu mat sëkk ñëpp àndandoo tëdd di jooy ndax loolu mënees na koo dégg munta nekk beneen bi ci des ci li ñuy woon seenu bëggeel ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam gannaawam ci bilaal mii ci boppam la aju bi nga xamee ne dem na radiallahu taala nag ba li nga xam ne kuy dund ku nekk moo lay xaar muy bis boo xam ne ci nga war a génn àdduna bilaal dem na ba nekk ci sukuraat soxnaam toog fi wetam di jooy di wax ne wuy sama njàqare li bi mu ko defee bilaal dindi li muuroon ci kanamam ne ko bul waxati loolu neel wuy sama mbég mi mu ne ko loola nu mu demee mu ne ko ëllëg dana fekk nu fekki suñ soppee muhammad sallallahu alayhi wa sallam ak i saxaabaam la shakk ne kon njàqare amatul njàqare amatul gannaaw loola la chaque ne waa jooje nga xam ne mooy jihaadkat bu mag boobee ku dëggu kookee ku muñ kookee kookee yonent bi sallallahu alayhi wa bégal ci àjjana ba ne ko saa bu ma duggee àjjana dégg sa tànkee di fa yëngu loo doon def ba loola xew kon kooku xam na ne faatu moo ko tee dugg àjjana kon fii fi àdduna daanaka moom defatu fi woon dara waaye xam na ne tuyaaba du doy loolu moo tax tomb ñetteel la bokk na ci li gën a yéeme ci lu nuy feddlil mbëggeelug saxaaba yi ci yonent bi sallallahu alayhi wa ak seenug sax ci bëgg ko ci jamonoy xilaaf ak muawiyatu ibn abi sufyaan gannaaw boo xamee ne alxulafaa urashidoon jeex nañ ba lu bari ci saxaaba yi jeex nañ dafa am ci dëkk bi ñuy wax basra waa ji ñuy wax kaabis ibnu rabia kooku dañoo wax ne dafa nurook yonent bi ci jëmm ba ñi ko doon gis sax dañuy tiit Abdullah ibnu Amir muy gouverneur wu Muawiya foofa ca Basra mu bind benn lettre Muawiya di ko yëgal ne fii fi Basra day jëmm a ngi fi joo xam ne nit ñëpp moo leen gën a nur yonent bi sallallahu alayhi wa sallam Muawiya yónnee bind ko ne ko na ñëw nañ ma ko andil kaabis ibnu rabia bis bi mu ñëwee ba dugg ci kër gi ñu ne awee moo agsi mu ne na jàll si bi mu ne pël Muawiya dafa jóg taxaw tiit ñoddi ko mu ñëw mu toogal ko fi mu toogoon foon ko ci diggante ñaari bëtam waxtaan ak moom bi mu noppee am na genn dex gu mag gu ànd ak i tool goo xam ne euh, ñu bari soxla woon nañ ko mu doonoon loo xam ne euh, jullit yépp ko moomoon ndax alal yi baytul maal la woon waaye nag ki jiite jullit yi sañ na caa def nu ko neex mu jox ko ko ne ko tool boobu boo demee nga jël ko ndax xam na ne ki yor melokaan wi jaaduwul muy nekk ci kaw suuf di souffrir ndax dafa nuróog yonente ba sallallahu alayhi wa sallam anas ibnu malik radiallahu taala anhu da daan def su ko gisee rek jooy ne kii day moo gën a nuuru ñëpp yonente bi sallallahu alayhi wa sallam te kenn ku nekk xam na ne anas moom ci ñi gën a xam yonente bi sallallahu alayhi wa sallam la bokk kon mbokki jullit yi bind bi nu jël fii ci ñii ak lii ñu doon dund ànd ak yonente bi sallallahu alayhi wa sallam te xew-xew yooyu nettali ñu nettali noonu mu doon yu xew moo xam ci nodd gaag yooyu nit ñaag waaye ji nga xam ne dafa nur yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ñu teg ko ci place bu toll noonu bind bi mu nuy jëkk a jox mooy fonk goo xam ne ñoom fonkoon nañ ko yonent bi alayhi salaatu wasalaam ak bëggeelam goo xam ne yemul ci ba mu teewee seen diggante waaye ba mu jógee seen ba mu leen wanee gannaaw dafa mel ni sax dafa raw kon ñoo gënoon a bëgg ñépp yonent bi ndax bëgguñu ko ba yem ci bëgg jëmmam wala bëgg diineem wala bëgg sunnaam waaye dañ koo bëgg ba bëgg sax fan yañ doon dund ànd ak moom ak béréb bañ doon dund te nekk fa ak moom lépp lu leen koy fàttali rek loolu seenu bëggeel da cay feeñ kon fàttaliku gindiku googee ak fàttaliku njub ga ak fàttaliku leeru tawxiit ga ak sunna ga nga xam ne moo doon solo ci seeni xol loola moo tax aju googee am ci ñooña te loola doonut loo xam ne loolu dong moo doonoon seenu dund loolu mën nañ ko jàppee loo xam ne lu gaar la yooyu nu doon wan loolu lu gaar la loo xam ne su amul woon xëy na noon mën naa ñëw tey wax ne ah ñooñu kat amuñu woon soxla ci yonent bi waaye yii yiinu histoire nettali daf ñuy wane nan lañ meloon gannaaw yonent bi alayhi salaatu wasalaam ak nan lañ ajo woon ci moom ànd ak mbëggeel googu bokk na ci bind yi ñu fiy jël moo di su fekkoon ne yi nit ñi baaxoo tey muy di tànn ay bis di ko ko defal moom yonent bi alayhi salaatu wasalaam ngir fàttaliku ko su fekkoon ne lu saxoon ci sharia la kon duñ toog ba nit ñëw di nodd gannaaw ay at di leen fàttali yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ñiy jooy waaye danañ mën bis bu set wala at mu nekk wala weer wu nekk sax ñi def benn bis boo xam ne dañuy dajaloo ngir fàttaliku yonent bi sallallahu alayhi wa sallam loolu moo tax seenu mbëggeel dafa doonoon mbëggeel guñ tënk ci sharia foo takk mbëggeel ga nag ci xeetu mbaax njub gi yu mel noonu weesu na ko waaye nag dafa tënk woon ci sharia sañu ñu ci woon a dolli nag dara loo xam ne sharia digalu leen ko sañu ñu ci wàññi lenn loo xam ne itam sharia da leen koo digal kon ñooñu ñooy saxaaba yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ay nit ñu baax nit ñu jub nit ñu dund lislaam nit ñu bëgg yàlla nit ñu bëgg yonent bi te tënk yooyu yépp nag ci sharia ni mu leen ko sante allahuma inna nasaluka mujibaati rahmatik wa azaima magfiratik والسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر والفوز بالجنة والنجاة بعونك من النار وصل اللهم وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين